élection législative nga xam ni dañoo war a tànn ñi nga xam ne ñooy représenté gox goxaat yi représenté askan wi ci assemblée nationale ci la ñu nekk nii waaye taxumaa jóg li tax taxumaa jóg mooy jaar na fi ba tàyyi te kenn mësu cee taxaw assemblée nationale xeexal Bambey kon yi élection ñoruma ndax xam naa ne ni mu mel rek lay melaat Assane Dia du maire bu ñor ngësam lee ko indaale déem ju xaay la ngësama ko indaale ñorul ñaareel bi mooy ñaareel bi mooy mag la xam-xam ba bariwul waaye bëgguma kenn ŋàññi ko bu ko kenn ŋàññi ndax doomu Bambey la ku tële ak ku mënul dangeen koy comprendre daa mënul moo tax jarul wax dara waaye nag na bàyyi xel nii waa Bambey ñëw nañu sama kër seet si ma wax ma ay njaaxum ak i tojaange yoo xam ne am na ci mairie Bambey bi loolu nag loolu nag du lu may wax fii dinaa ko fekk ba këram walla ma fekk ko mairie ci njekk ak teraanga waxtaan ci ak moom ngir mu jubbanti ko ngir mu joyanti ko parce que alali Bambey la su fekkee ni defu ko beneen phase lay gis ci man te bu boobaa dina xaw a ñaareel bi mooy li Bambey di jooy jarul ma koy wax ñun ñëpp xam nañu laqatu mooy ñi am alal ñëpp Bambey ak ñi am daraja am seen am-am dañoo daw daal dina dañoo ñemewul waa Bambey loolu mooy yow bëggoo Bambey ku am kër bu rafet daw dem Saly wala Mbour ku am alal dem nëbbu ko ku am oto bu rafet jaare ko ndàngal ma Bambey amul courant Bambey amul ay tali Bambey bu timis maasee koo jàkkaarloolu doo ko gis Bambey bu ñëpp tuflee mu taa Bambey amul marché université bi jël nañ ko jox ko jox ko ñeneen bàyyi nit yi Bambey yi bàyyi jigéeni Bambey yi